sommes à Khayer, une île située sur la rive droite du fleuve Casamance, entourée par les villages insulaires de Nyomoun, Kitu et Bakassouk. Quatre jours durant, les populations ont assisté à l'intronisation d'un prêtre traditionnel qui aura la charge de gérer le Khumilo, l'un des plus grands fétiches de Diola du Biskassa. domino moom mooy li ngeen déggee en français ñi ñu ko naan fétiche ou bien bois sacré voilà dafa dafa bokk ci humilo ñun ñu ne jalan olof ñu ne jalan ñun ñu ne bëciin bëciin moom mooy un bois sacré fétiche voilà mu am e, fétiche yu bëri ñun ñu ne mais fétiche bu nekk am na tuuram humila moom mooy fétiche boo xamante ne jalam boo xamante ne boobu c'est par famille chaque famille am na ko te moom it du sori fétiche dafa bëree façon am na yu nekk ci yu ñuy yóbbu ci àlla am na yu nekk moom ci ci biir buggul sorante ak euh, dëkkukaay bi fu ñuy ñi moom la ñuy naan mu la moom it la ñu xam moom eh, doo ko def ci biti moom da koy def néeg da koy tabax wala nga tapaatu ko def néeg taw bi bañ ko taw eh, dafa di loo xamante ne fétiche boo ko déggee ñi ko bokka du ñëpp du caage ne koo fekk mu tuural la foofu kenn kenn kooku eh, fétiche bi moo koy tànn. bu ñu dañ ko fi fekk suñu maam mu ñoo ko sàmm. xam mi ne njëriñam daal ñu ne tuur bu ñu ne tuur mooy mag bi loolu moo tax ñu def ko néeg waaw tuur bu ne buñu bu ñu samp ci àdduna ci suñ cosaan moom mooy mag bi mooy moo tax ñu ne ko xummeel cosaanaye bala balaw kayo yo yende ngesi yo yende ngesi bari fana kanga yakata yo panenge don nandu don nandu se mute murujo ka gelen bata sering da lokinya ke sara pop munyaro mojo ka gelen ako panu jam kana kata echo sana eta kumami e joki nye norwarumo norwarumo ujonges norwarumo ujonges jojot o hawma duwolo famille e onin ha nje chosana eta kumamolal e jokonjok mais fani premier jour bi moom mooy moom mooy keroog la ñëpp ñi déggoon ne diw engagena na Xumilo jooju lay ñu commencé keroog jooju la ñi ko ko war a jox comme mooy ñi ko njëkkee am Xumilo keroog jooju la ñuy ñëw ci guddi gi bu boor sëgee amul benn bi ñu yaagaanu yaa waataan foofu ñaan bi rek la ñuy ñaan ci vendredi bi moom mooy dinañu def veille obligatoire ñi ñi ko yore ñii ñi ko ñi ma koy jox ñooñu kenn du bouger du nelaw ñi nekk ci biti bu la neexee nga dem nelaw mais bu dul loolu ba borseg léegi bu ñu ci jógee borseg jeex na léegi benn baat bi la jàmma ji rek lañ koy wax ba quatre jours quatrième jour bi ñi ñi sori ñi ñoom même des jours kenn ku nekk mën nañ mais ñi ma ko war a jox féticheurs yi ñi ko war a jox ñoom les quatre jours c'est obligatoire dinañ ko fa fekk keroog bu ngeen lañ fa gisul nga xam ne daal ki fa toog moom toogaay bi boo ko mais ñoom quatre jours yi forcé nekkee ci PAM bi waaw mënul jékki rek mu mu jël ñu yëpp moom mooy tànn ku mu bëgg mu attaqué waaw boo demee ba jaaxal mun nga dem ci ñeneen ji ñi dañuy dóori pétaaw ñeneen ñi tuur tuur bi moo moo lay wax boo demee kooku mu ñu ne la ah am moo nekk si yow maanaam boo ko defulee même maanaam jur jur comme mbaam naag yii yëpp mun nga koo am waaye du du ñu la njëriñ dem da ngay dem ba gis ñu dee yëpp. feeñoom bi ci ni ñu xam ci feeñoom bi yàkka dafa lay yàkkal. fétiche bi bu la jigéeyee bu la yàkkalee boo amul chance ñun dañ am cosaan boo xamante ne boo amee njaaxali comme ñii ñi ni ñuy demee ci sëriñ ñun am nañ fu ñuy dem boo fa demee bu la yàlla boolee ak moom. dina na la ah yow sa coono ji jalan sangam moo lay moo la soxla boo buggee génne ci coono boobu moom mooy da ngay def tout nga responsabilité ko nga jël ko boo koy jël du yaa koy jël bu ñu la boo amee ñu la fa jiitu ñun ñoo la koy jox voilà boo ko deful li gën a nakari moom mooy mën na la andi ay feebar te bu feebar bi mën na dem ba tollu feneen foo xamante ne kenn mënu la fa même après nga jël ko bu fekkee yàqal na la ba pare yow yaa perte du a faj voilà moom bulay laaj laaj premièrement nga daal di engagé wu mën nga am sens nga nekk jàmm voilà mais boo ko deful coono dama doon naan sàngara bu ëpp sax bi ma nekkee xaal yëguma loolu bu ma demee ba nekk mag bu ñu nekkee di naan nii rek damay naan ba xamatuma fu ma ne waaw may dem di dem di dem di dem di dem di laajte di laajte ma dem dégg loolu waaw ngeen bi ma déggee loolu ma góorgóorlu ma def ko yàlla def ma ko defee ba pare ma wuti sama bopp ma génn si loolu hmm, nekkuma di naan léegi bàyyi naa naan waaw parce que loolu boo ko boo ko boo ko yoree hmm, problème la parce que yéen benn jour boo ñu la fekkee di mandi te ñu wax la lu lu lu wax doo ko doo ko du du ci sa sa bopp waaw parce que tuur tuuru neexul jël de foog nga nekk lépp lu ñu la wax nga dugal ko fi boo dugg rek doo am problème loo ni nga war a def di nga ko def normal waaye boo bu dugg foofu di laajte ñeneen ñi naka laa war a def yow boo duggee rek xam nga ni nga war a def. lay dikkee lu bari léeg-léeg sa yaram lay dikkee da feebar. wala looy liggéey doo wala nga nga ay mala comme béy ay xar ay nag léegi da ngay jëkki ci nag yi di dee loolu la lay wala mu téye ci xale yi seen jàng du avancé ak Pomelo fait partie des plus grands fétiches de la société Diola du Bliskassa. Barrière traditionnelle contre la consanguinité, cet hôtel veille également sur l'équilibre social et le bien-être des membres de la famille concernée. alalata cosaanayi ɗoye toye fumulo alalata yeru fayi tore jarumilum to mi tawi mire ale nuyo e ale nulu alala yuma ne jiyo a noona fe nanu de a fa na jiyolde walla ala na jow na jow aduna cosaan cosaan bu ngeen ko xamle bu ngeen ko defee ci seen yaram ngeen ko yëg moo di feebar boo feebaree ñu demee ci xam ne ñu gën a xam ci dara ñu laajte xam ne ñu la ko jàppale parce que yow bi ngay def loolu da moom kenn ko nëbbatu rek mu ngi lay gis. suñu doom yi ñi bokk ci li ñëpp ñu ko am seen doom yi jigéen yi bokkee ci famille bi buy sëy force jëkkëram dina xam fi même xamu fi dina yónni dara. ñu defar ko ko mais loolu c'est pour eh, boo joxe goro gi boo joxe loolu du sa goro nga koy jox day jalam bi moo ko moom ñu fay teew keroog di ñaan diggante jëkkër ji ak euh, doom ji jóge foofu dem sëy feneen pour ñu am jàmm kenn ku nekk mu am li leen tax sëy parce que balaa nga takk jabar dara nga ci séentu yére bi ni ma sol nii boo gisee ñu def lii deret bi ngay kii parce mënoo sol yére bu bu weex ou bien bu pour nga kii yére bi moo nga mën a sol ak mbaxane bu xonk bi pour nga mën a dugg foofu loolu moo tax ñuy sol lii ku ñëw képp ku ñëw mu xam ne kii di kii kii moo moom tuur bi. téere la ci ñun comme boo paree bëri. man nga dem ci sëriñ bi mu defar la te wala nga am soxla nga dem mu defar la safa ñun it mën nga dem ci ñoom ci moom nga sëgg ak moom fu mu gën a am importance sëriñ ñun doo ko doo ko fay balaa mu fajal ñun dangay dem tàllal ñu tuural la lii laa soxla bu dee di ma jàppale ma am ko même concours concours laa bëgg léegi ne boo ma mënee jàppale ma am ko dinaa la fay lii sula la yàlla maye mu jàppale la boo ko amee nga ñëw fay boo fayul amal loo ko ba mais sëriñ moom da koy jox mu dogale liggéey am nga li nga soxla amoo ko l'essentiel moom liggéey boobu njëriñ la looy liggéey mën na ko sàmm nit bula la bañee ah boo bu dee da nga koy da koy joxe parce que ni ñu koy jëlee nii normalement ñun ñu fi nekk at bu nekk di nga ci bu lu tuuti boo amee 5 litres 10 litres nga dem nga ñaan a ah, xale yi sama doom yi ñu ngi béréb sàmbal na leen jàppa ñu am fa jàmma walla seen liggéey mu dox at bu nekk voilà boo ko defee mën nga ko yaakaar comme yaakaar naa mooy un di nga am jàmm boo ànd eh, li nga doon liggéey mu yàqu bu soobee yàlla dina la ko bay bu dee fekk yaa ngi ciy yëngu. ñaareel eh, dëkk bi bu amul maanaam comme man ni ma nekke nii bu dee man rek maa ko fi def famille bu nekk bu ñu ci soxla seen kii man maay def voilà kon nag bu dëkk bi amul dafay dem feneen comme nu ñu ne nii eh, les village environ d'Iblis Casa am na ñi ko amul léegi ñooñu ñun ñooy dem bu ma amul jot ñooñu seen son dina yàqu boo ci famille bi bu ci buggee dem wala keneen te ku mel ni ñun déplacé wul seen soxla du fay kon nag it important bi moom mooy ku fi soxla du dem fu sori maa ngi ni dinaa bay sama liggéey ma ñëw. fétis bu nekk jalam bu nekk am na insignam pour nga mën a xam boo boo boo tasee moom nga xam ne ñun ñi ko xam ñu mën a distinguer bii bii jalan la bi bii jalan la lii foo ko gis nga xam ne xumilo moo fa nekk lii ci tiir la jóge xuraf lañ koy wax ñun joola ñu ne ko xuraf bu dee am nga loo xamante ne daal am nga sa liggéey boo xamante ne alal boo xamante ne daal fu mu nekk dafa sori mun loo ko dugal ci kër gi boo ko yóbbuwee nga teg foofu ñun ñi xam boo ko paree jël boo gisalee di nga am ne lii su ma ko jëlee man xumiloo bi dina ma laaj te moom sa laajoom bi comme mooy daf lay jàpp di nga feebar waaw boo ko ci tege rek voilà wala am na koo xamante ne bu la bëggee feeñ di nga tase ak lu mel li gàddu waaw bu dee mag dina xam man daal lii xumilo la l'intronisation d'un prêtre traditionnel en charge du xumilo reste un moment de fête et de communion dans les villages des populations des îles voisines ayant un lien avec le sanctuaire familial viennent naturellement jouer leur partition à cette consécration.

famille la taw la tawrinone on du kayyo famille buro tu ne joku mawlat aw aw sene bitine bu no ha mu sembasata cosanai sembasata cosanai nje ki somu bukuru tu anon daga nan mu jolo borom nyarek anon doga bukuru tu jandi jikan kajal humilo akala mu humilo memu cosanai Dikkamu banne ɗon hakke nduɗo dubkuru famille ay de jilli ko o kam mom rek fahu jokki ban hu jok fahu jokki hukenja ɗo hukenja hukenja yala tuyle jaw eji mo nan mene ringe anno wan anno wan bonugorule furga anno wan bonugore furga jikkan jikkan cosana e jikkan cosana miñe yomurom nye ohanya hahanye meherom nye nyake ano sanunga lemu tate bo bay tate bo bay ano an fanangaru e fm ano san fanangaru nye dilo jiko ku babu ma sifra do ohanya ho herom nye dilo jiko ku babu sifru gasu na jingaru riano jibi jikat bande jilani yo ki mu ho yo ki mu ho hanya ho he moom moo dañu yóbboo fële ci ñu jaayoon ñu dem solal ko def ko banderole ñu koy buule loolu moom fu jëkkoon def ci ñu yi après bu ñu jógee ci ñu jaayoon yi suñu mbokk yi dëkk ci beneen dëkk ñuy wax ba kësu ñoom tam ñu jël ko solal ko ñu koy buule bu ci jógee waa suñu nijaay papa yi ñu koy benn dëkk ci ñu wax Sénégal moom lañ jël dem solal moom moom ngeen fekkee woon noonu mooy mujj gunge mujj kon waa Bakasub la. waa Bakasub waa Bakasub ak xaar euh, ñoo njëkkee après Bakasub après Hiidi. yombe kono mo humilo bakilombe kono mo humilo mais humila to sana tayo yo yo mu wanya he o mu wanya he yo bakina bu ula to kan bakina bu to sana tabo donc to sana tabo bakina bu yo mu yoye donc e yimuri li to tate ni li lo wawar mo kan tate di bakina mbe parce que kan bakina atiyom donc i to to mun kan dakku donc de obore bakina bu donc en fanyi bakina bu yaw yo mu tesana li wanji ko mu wo mu di kabu ko di kaba janyin parce que oli ye yo mu tuilu bu kanyin donc tesana euh, ye njukum kana ko ngane ngu jukum ban kurna bu meg ngane ano san adi ke tatanare bona ngota tanyin ene efurga angal dum ta efurga yo mu dahale yo ma se ko na ba ka suwe donc tesana gane jom donc ujuku date anaka ndom nyaaru ga kana ka sumer ka ngese angestu atka ka jen ka boo gisee ñi koy suñu maam yi di ko def di ko def ba léegi ñun mënuñu koo bàyyi suuf si la parce que ba léegi ñu ngi ci béy ci suuf si tant que ñu ngi dund di ci suuf si cosaan boobu mënuñu koo bàyyi xanaa nga bàyyi suuf si dem nekk feneen te boo nekkee feneen bu la toppee tamit noo def di nga dellu si biir suuf si. La religion traditionnelle occupe une place essentielle dans la société Diola Iblis Kassa. claniques, villageois ou familiaux Ces sanctuaires apportent, d'après les croyances locales, le kassoura, c'est-à-dire la paix, l'harmonie sociale, le bien-être et la santé.